Eh, ginnaaw daje yooyu nga xam ne ñoo ngi koy def ngir laltaayal congrès bu mag boobu nga xam ne ñoo ngi koy waajal eh, tey jii daje woon nañ fii bokk na ci ay tomb yoo xame ne nii waxtaane woon nañ ko bëgg koo fésal gouvernement di Sénégal jot ci sénégalais yépp jot ci ngir gën a jox yitte ñu nga xam ne dañ leen di tuddee arabu arabophone di Sénégal wala arabisant yi comme ñi ko ñenn ñuy wax bokk na ci tomb yooyu nga xam ne bëggoon nañ koo fésal mu àgg ci noppi ñépp euh, ouvrir ay département arabe maanaam ubbi ay département arabe yoo xamee ne nii dañ koy ubbi ci université publique yépp comme ni mu amee ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar loolu nag à défaut d'avoir euh, une université arabu islamique ndax université arabu islamique fii ci Sénégal ak wàccuwaay bi fi dina am dafa nekkoon doléance bu yàgg a yàgg bokkoon na ci promesse de campagne son excellence président de la république Macky Sall ouvrir une université arabu islamique ci loolu nag lañu gis ne comme xañ na ba léegi loolu sotteegul jot na kon ci université publique yi nekk Sénégal yépp ñu ubbi fa ay département d'arabe comme ni ko université Cheikh Anta Diop amee ngir euh, maanaam woyafal yéen bi nga xam ne teg nañ ko université Cheikh Anta Diop bu Dakar ndax lu ëpp ñetti junney bachelier daanaka chaque année rek dañ leen fay jiima dugal te mu nekk loo xam ne nii dem na bu mënatut a nekk. ci loolu daal ñoo ngi sàkk koon université publique yi ci Sénégal yëpp ñu ubbi fa ay département daraab ngir euh, gën a yaatal yëf yi ngir gën a euh, améliorer conditions yi nga xam ne ñooy jàng danañ ci nekk ak. Euh, université bi nga xam ne moo leen doon accueillir tamit maanaam jafe-jafe yu bëri ñu teggal ko ko ñaareel ba ñoo ngi sàkku tamit université virtuelle di Sénégal Cheikh Hamidou Kane ñu ubbil ko arabophone yi ndax ba tey jii ñuy wax ak yéen formation ya fa nekk bari na lool mais njàngum arabu islamique amagu fa kon ñoo ngi sàkku ñu boole ko ca yooyee euh, ni ki noonu it ñoo ngi sàkku euh, ñu ubbil arabophone yi wala les diplômés en langue arabe ay projet yoo xamee ne nii danañ leen ca mën a dugal ci wàllu mbéy ak ci wàllu sàmm ak ci yeneen ak yeneen ak yeneen institution de financement yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak de insertion nekk ci réew mi it lu mel ni DER euh, 3FPT ANPEJ ak ñi mel ni yooyu yépp daal institution yépp daal ñoo ngi ñaan ñu ubbil ko arabophone yi ndax li ñu fi wax sànq ne ab lim bu bëri ci ñi nga xam ne ni ñoo diplômé wala ñooy jàng arab Euh, faatu nañ ci ci géej gi mu mel ni loolu buñ leen ko ubbiloon bu ñu amee ci lu ñu jàpp daal loolu ñuy tuddee mbëkk mi phénomène boobu dina wàññeeku bu baax a baax kon daal ci cadre boobu ngir phénomène mbëkk moomu gën a wàññeeku ñoo ngi sàkku lépp loo xam ne ni institution financière la wala euh, insertion rek ñu ubbil ko arabophone yi ngir aywa utal leen benn programme spécial boo xamee ne ni ñoom ñoom rek ñoo koy tax a jóg bu ko defee loolu dina yombal seen insertion dina yombal encore ñu mën a am seen wàll ci financement yi nga xam ne ñu ngi ko yëkkati di ko jëmale ci ndaw ñi ak jigéen ñi. Euh, bokk na ci li nga xamee ne nii tamit euh, waxtaane nañ ko fii mooy gouvernement wu Sénégal ak képp ku di sénégalais li nga xam ne mooy xew diggante Palestine ak Israël ñu taxawaat ci taxawaat bu gën a ëpp solo ngir li nga xamee ne nii kët ma ngay xew fee ca Palestine am xel mu rafet nangu ko képp kuy xel mu rafet rek même bu dul wàllu arabe ak islam ak yooyu humanité daf ko ñaaw la mu mel ni nag communauté internationale seetaan bi yàgg na li ñuy wax deux poids deux mesures dafa mel ni moom la ñu seetlu ci cas bii waaye daal jot na sëkk jot na sëkk réew yeeg waaw waaw léegi mu mel ni kon jot na sëkk kon communauté internationale gouvernement bu Sénégal kenn ku ca nekk la nekkoon sa taxawaay ci question boobu ñu taxaw ngir ñu am une solution définitive